Yowaana saar amoon na benn bis farisiyen yi dégg ne ñiy topp yeesu ñoo ëpp ñiy topp yaxya te ñi yeesu sóob ci ndox ñoo ëpp ñi yaxya sóob fekk yéesu moom ci boppam daawul sóob kenn ci ndox waaye ay taalibeem ñoo daan sóobe bi yéesu yégee loolu nag mu jóge yudde dellu diiwaanu galile bi muy dem galile waroon na jaar ci diiwaanu samari noonu mu egsi ci wetu dëkku sikar ci tool bi ba mayoon doomam yuusufa foofu la teenu ba nekkoon yéesu toog ca pindu teen ba di noppalu ndax coonob tukki ba ci digg bëccëg la woon noonu jigéenu waa samari ñëw fa di root yeesu ne ko may ma ndox ma naan fekk booba nag taalibe yeesu ya dañoo demoon ca biir dëkk ba di jënd lu ñu lekk jigéen ji tontu ko ne yow ngay yawut man may jigéen ju dëkk samari nan nga ma mën ñaane ndox jigéen ji wax na loolu ndaxte yawut ya bokkuñu woon ak waa samari ndab yu ñuy lekke noonu nag yeesu tontu ko soo xamoon li yàlla maye xam ki lay ñaan ndox kon yow ci sa bopp yaa koy ñaan te moom dina la may ndoxum dund jigéen ja ne ko sang bi teen bi xóot na te amuloo baag kon fooy jële ndoxum dund xanaa kañ xalaatuloo ni yaa gën a màgg suñu maam yanqooba moom mi nu gasal teen bii mu naan ci moom ak i doomam wëgg ci juram yéesu wax ko ni ku naan ci ndoxum teen bii balaa yàgg mu maraat waaye ndox mi may joxe ku ci naan du marati mukk ndaxte day nekk ci moom bëtu ndox buy bal di joxe dund gu jeex noonu jigéen ji daldi ko ne sang bi may ma ci ndox moomu ngir ma bañ a teemar bay ñëw fii di root si yéesu ne ko demal woowu sa jëkkër te ñëw jigéen ja tontu ko ne aw ma jëkkër de yéesu ne ko wax nga dëgg ne amuloo jëkkër ndaxte amoon nga juróomi jëkkër te ki nga nekkal léegi du sa jëkkër li nga wax dëgg la jigéen ja ne ko sang bi gis naa ni ab yonent nga nun nag naka jekk sunuy maam ci tund wee ngay seen lanu daan jaamoo yàlla waaye yéen yawut yi dangeen ni yerusalem lañu ware jaamoo yàlla yéesu ne ko jigéen ji gëmal yi ma lay wax dina am jamono joo xam ne du ci tund wële te du ci yerusalem ngeen di jaamu baay bi yéen waa samari xamuleen li ngeen di jaamu nun yawut yi xam nanu li nuy jaamu ndaxte kiy musal àddina si ci yawut yi la jóge waaye jamono dina ñëw te agsi na ba noppi jamono joo xam ne jaamukat yi dëgg dinañu jaamu baay bi ci xel ak ci dëgg ñooñu nag ñooy jaamu baay bi ni mu ko bëgge yàlla xel la kon ñi koy jaamu war nañu ko jaamu ci xel ak ci dëgg jigéen ja ne ko xam naa ni almasi bi maanaam kirist dina ñëw te bu ñëwee dina leeralal lépp yéesu tontu ko maa di almasi bi man mi wax ak yow noonu nag taalibe yeesu ya dellusi gis muy wax ak ab jigéen ñu daldi jaaxle lool waaye kenn ñimiwu ko woon ne looy laaj walla lu tax ngay wax ak moom noonu jigéen ya wàcc fa njaqam daldi dem ca dëkk ba ni leen kaay leen gis nite nga fee ku ma wax lépp lu ma mas a def ndax kooku du almasi bi noonu waa dëkk ba jóg jëm ci yéesu fekk taalibe yeesu ya di ko gëtën ne kilifa gi lekkal waaye yéesu tontu leen am naa ñam bu may lekk te xamuleen ko taalibe ya nag di laajante naan ndax dafa am ku ko indil lekk yéesu ne leen sama ñam moo di def coobare ki ma yónni te àggale liggéey bi mu ma sant du dangeen naan fii ak ñeenti weer ñu góob waaye man dama leen naan xool leen tool yi ñu ngi ñor ba weex tàll di xaar ku leen góob kiy góob tool yi mu ngi jot xaat peyam day dajale nit ñi ngir dund gudul jeex ni ñuy dajale pepp kon boog kiy jii dina bégandoo ak kiy góob wax ji nu wax ne kenn dina ji keneen góob dëgg la yebal naa leen ngeen góob tool bu ngeen beyul ñeneen a ko bey te yéena ko jariñoo bi jigéen ji nee waa dëkk ba wax na ma li ma def lépp ñu bari gëm nañu yéesu ñu daldi dikk ñaan yeesu mu dal ak ñoom yéesu toog fa ñaari fan ñu bari gëm ko ndax li mu doon wax ñu ne jigéen ji léegi gëm nañu te du li nga wax moo tax waaye li ñu gisal sunu bopp te xam nanu ne dëgg-dëgg kii moo di musalkatu àddina si bi yeesu amee ñaari fan ca dëkk ba mu jóge fa jëm diiwaanu galile ndaxte moom ci boppam ne woon na ab yonent kenn du ko fay daal cim réewam bi mu agsee galile nit ñi teeru ko ndaxte ñoom itam teewe woon nañu màggalu bés jéggi ba ba ca yerusalem te gisoon nañu la mu fa defoon lépp noonu kon mu dellu si kanaa ci galile dëkk ba mu soppee woon ndox ma biiñ amoon na benn dagu buur bu dëkkoon kaparnawum te doomam feebar bi mu déggee ne yeesu jóge na yude ñëw galile mu dikk ci moom ñaan ko mu ñëw këram wéral doomam ji wopp bay bëgg a dee yéesu ne ko yéen daal du ngeen gëm mukk fii ak gisuleen ay firnde walla ay kéemaan dagu buur ba neeti ko sang bi ñëwal balaa sama doom di dee yéesu ne ko demal sa doom dina dund kilifa ga gëm la ko yéesu wax daldi dem bi muy dellu këram nag ay surgaam gàttandu ko ñu daldi né ko xale bi dina dund mu laaj leen ci ban waxtu la tàmbalee tane ñu tontu ko ne démb ca njolloor la am ak féex noonu bàyyu xale ba daldi seetlu ne ca waxtu woowa la ko yeesu ne woon sa doom dina dund moom ak njabootam gépp ñu daldi gëm yéesu lii mooy ñaareelu firnde bi yéesu def ci galile ginnaaw bi mu jógee yude